salaamaaleykum sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci sunu weer wu tedd wii di safarul xayr nuy ñaan li ci sëñ bi digle ñu defe ko ni mu ko bëggee te tase cee ngërëmam di fàttali rek ñenn ñi nga xam ne xëy na xamuñ ni mu demee ne màggal mi ngi tàmbalee ci samedi ci ngoon bu jant soo guddi googu mooy guddi màggal di guddi dimanche. ndax ku ne xam ne ne samedi mooy bëccëgu fukk juróom-ñaar kon kay bu jant soo guddi gi ngay dugg mooy guddi fukk ak juróom kon guddi googu mooy guddi màggal boo ko xëyee yendoo ko màggal ba jant soo guddi altine gay dugg guddi fukk ak juróom-ñeent la damay bañ ñu bari mu di leen nax kon ku bëgg a màggal guddi màggal jàppal ne bëccëgub gaaw mooy fukk ak juróom-ñaar bu jant soo màggal dugg na loo bëgg a def ci ay bernde tàmbalil loo bëgg a def ci jàngal xuraan ak xasida tàmbalil lu baax loo bëgg a def rek tàmbalil màggal tàmbali na mu ngi tàmbalee ci gaaw ca ngoon bu jant soo nga fanaane ko xëy yendoo ko ci bëccëgub dimaas bi dimanche jooju mooy doon fukk juróom-ñett foofu nag tëkkuñu ko ci yoor-yoor bi wala waxtu sàngam wala waxtu sàngam loolu amut cëslaay lu wér a wér kenn jëriwu ko fenn bëccëg bépp yam foofi berndee baax na amut waxtu wuñ ko jagleel li am solo daal mooy bëccëg fukk fukki juróom-ñett yëpp foo fi defee lu baax rek sëñ bi nangu na ko sëñ bi gis na ko waaye néewuñ nag yoor-yoor bi wala nga dem barab sàngam fa lañ ko war a defee déedéet fukk foo waay mën a toog te bernde te jàng alxuraan jàng xaside jublu ci santale yàlla sëriñ bi baax na waaye tënkuñu ko ci ab yoor-yoor wala tisbaar wala takkusaan waaye nag boo ko yendoo ba jant so nag xamal ne màggal jeex na moom ndax fukk ak juróom-ñett sëñ bi waxoon bu jant so lay jeex kon guddi ga ca topp di guddi fukk juróom-ñeent lay doon muy guddi altine ga googa moom ak loo mën a jàng ak loo mën a def xama ne da ngay gunge màggal waaye màggal jeex na kon nag guddi gi bu la raw gaaw ca ngoon la bu jant soo ci fukk ak di dugg te guddi màggal gi nga xëy yendoo ko ba jant soo màggal gi jeex na gunge gan nag wàññiwul dara waaye jëmmi gan gi nag mooy guddi fukk ak juróom-ñett di gaaw ca ngoon na leer sama bokki murid yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa